ñu jukki leen li gën a fës ci biir internet bi dañu koy dooree rek étudiants yi nekkee ca diwaanu Saint-Louis ca université Gaston Berger ndek démb rek dañ doon amal ab confrontation bu métti ak force de l'ordre yi ginnaaw rek ba njiit yi nekkee foofee ca université ba dañoo jël rek ab dogal ngir tëj lépp loo xamante ne ni rek restaurant la nekkee foofee rek ca université ba maanaam rek journée sans ticket tax rek étudiants yi nag daal di rek ab jàmmaarloo bu metti ak force de l'ordre yi waaye rek ci biir jàmmaarloo boobule bilan biñ ci am rek moo di am nañ ca cinq blessés yoo xamante ni rek ci côté étudiants yi la amee ak ay cas grave yu métti métti ba tax rek ki nga xamante ne nii moo yore lépp lu jëm ci coordination wu étudiants yi euh, di wuyoo ci turu Moustapha Diop daal di jël rek ab dogal ne benn cours rek dootuñ ko commencé waat ginnaaw rek boobee dogal dakkaluñ ko mu di journée sans ticket ki nga xamante Moustapha Diouf moo yooyu le kàddu moom mi nga xamante ne nii moo di coordinateur étudiants yee jàngee rek ca diwaanu Saint-Louis ñu àddu wax ci leneen mu di jàngoro ji bëgg lëmbe mim réew di Covid 19 ginnaaw rek ba mu njëkkee feeñee ca diwaanu Chine wër rek ba lëmbe àdduna wërngal képp mu di euh, Covid 19. ba tax rek Chine daal di décider nag lu génne lu tolloog dix millions ci ay doses vaccin contre euh, Covid 19 daal di koy jox rek li nga xamante ni moo di euh, Sénégal initiative nag COVAX ñoo ko daal di amee ci ginnaaw rek bi nga xamante ne nii l' organisation de la santé daal nañuy def rek boobule demande. kaddu comme ni ñu ko waxee rek te ndorteel li mu di jàngoro ji rek dafa daal di bëgg lëmbi rek mim réew muy Covid 19 loolee tax rek 10 millions rek ci ay doses vaccin nañ ko xaarandi fii ci Sénégal ngir rek ñu daal di mën a jàmbaarloo xeex rek jàngoro ji rek di Covid 19. ñu wéyandi rek wax ci benn ñaawteef bu ñu nemmeeku rek ca diwaanu Parcelles Assainies bu ñu sukkandikoo rek ci Vox Populi moo ñu xamal ne benn bébé rek la ñu daal di gis rek mu daal di euh, faatu ca diwaanu Parcelles Assainies ci diggante rek route bi séparé unité 14 ak 18 ca marché ba nga xamante ni rek ñu bëri xam nañ ko euh, mu di marché police bu ñu sukkandikoo rek ba tey euh, ci journal bi lam ñu xamal rek moo di bébé bi dañ ko sànni rek ci benn poubelle ñi nga xamante ni rek ñoo ko gis mu di camion. camion yi nga xamante ne ni rek ñoo di jël li nga xamante ni moo di euh, mbalit yi corps sans vie rek la ñu daal di fekkee rek foofee rek ca benn euh, poubelle ka def rek li ni mel xamaguñ ko waaye nag yoon nag daal day ubbi nag ab enquête jëme ca loole waaye lañ mën a jàpp rek jamono ji moo di ñaawteef boobee rek am rek ci benn bébé buñ sànni rek ca poubelle nekk na li ñuy gën a waxtaan rek jamono ji ca diwaanu Parcelles Assainies ñu wéyandi rek wax ci beneen mauvaise nouvelle boo xamante ni rek Sénégal daal dina koy amaat mu di nag génnuk àdduna Abdoul Aziz mbay nekkoon ancien ministre de la culture mu nekk na koo xamante ni ni rek kenn dootu ko laajteeti fii ci mim réew moom Abdoul Aziz mbay mi nga xamante ni rek moo ñàkk bakkanam ndiki démb rek ci àllarba ji ginnaaw rek ci benn courte maladie bu ma amee woon équipe bu 24 actu yëpp di jaale famille am di jaale tamit l'ensemble du gouvernement du Sénégal ci fàttali rek Abdoul Aziz Mbaye Ndiaye mi ngi gane woon àddina niki 18 octobre 1954 ci Dakar daa nekkoon na nag diplomate nekkoon tamit homme politique franco-sénégalais nekk ancien directeur du cabinet du président de la République Macky Sall lors du remaniement ministériel du 29 octobre 2012 ñu di ko ñaanal rek suñu borom jéggal ko daal di koy xaare rek ci aljana yi gën a kawe dañu koy daal di jeexaleeg rek vidéo bi nga xamante ni mi ngi nekk rek di wër jamono ji réseaux sociaux yi mu nekk nag vidéo vidéo boo xamante ne nii métti na lool ci képp koo xamante ni rek gis nga ko mu di benn cri de cœur mu di Faa Mbay Mbaw ay atam rek toll ci vingt cinq ans ginnaaw rek ba mu nekkee di dund ak benn maladie bu méttee métti ba tax rek ku ko xool rek ci image bi sa yaram rek day daal di daw moom nag mi ngi pesé lu tollook trois cent kilogramme rek moom lay pesé jamono ji ñuy ñaan rek képp koo xamante ni rek gis nga mi le mbir nga daal koy jéem a jàppale ndax soxna si rek li na lool te li nga xamante ni rek moo ko wara faj mu di frais d'hospitalisation yi ci 15 millions rek la daal di toll ñuy ñaan rek képp koo xamante ni nii rek yaa ngi gis bile video nga daal di rek jàppale soxna si ngir feebar bi nga xamante ni rek dal na ko mu metti lool li rek moo fi gëna a fës ami internet yi dañ leen di jox dig dajee ba ëllëg ak jàmm